te moom mooy xalaat xalaat nag biñ ko waxee wax dëgg am na solo lool ndax jaam bi suñ borom daf koo defar xel moo xamante ni daf koy mën a utiliser ngir man ji di ci xalaat ci loo xamante ni da koy amal njariñ mën naa doon loo xamante ni xalaat la yu jëm ci àdduna yoo xamante ni mën na ko amal njariñ mën naa doon xalaat yoo xamante ni tamit day jëm ci leneen loo xam ne du am njariñ ndax xel suñ borom daf ci denc ay mbir yu mag yu kawe yu am solo nga xamante ni maanaam mu ngi noonu suñ borom denc na ci yu màgg yu bëree bëree bëri nii léegi nag maanaam boo xoolee li nga xamante ni maanaam xel bu fekkoon ne dafa doy sëkk rek maanaam xel màgg na am na solo waaye nag mënut a lijjanti mbir yi su fekkoon ne xel doy na sëkk rek du jar kon suñ borom di yónni ab ndaw ngir muy ñëw di leer leerlal mbir yi waaye nag ñàkk bi nga xamante ni moom la xel ñàkk doy ndax xel dafa am foo xamante ni su yeggee rek duusul mën a lijjante ci yi moo tax ñi nga xamante ni dañuy faral def li nga xam moom mooy xalaat am na foo xam bu fa yeggee bu fekkee delluwaatuñ ginnaaw rek bu ko defee maanaam seen xel mën na leen wàccee xalaat nag dafa am solo ndax bu fekkee da ngay xalaat dafa am foo xamante ni fi ngay xalaat jëm fa su fekkee ne xalaat yooyu jëmul foofu rek bu ko defee mën naa euh, mën ngaa mujj foo xamante ni du baax ndax départ bi ngay départ ci xalaat bi dafa am solo lool. moo tax fi mu toll nii ñi nga xamante ni mooy euh, suñu borom daal mu ngi noonu wax na ci wax na ci lu ci bëree bëri bëri ci alxuraan nii Serigne Touba it gis nga boo xoolee dikk na ci wax na ci lu ci bëree bëri nii waaw. ndax ki nga xamante ni dafay xalaat mënta yem ak ki nga xamante ni maam du xalaat. waaw ndax fi mu toll nii noonu ko Sëriñ a waxee rek man maanaam ilmul xata ay maanaam ngir nga am ko dëgg dëgg dëgg faaw rek maanaam ay xalaatu koy jiitu xam nga boo gisee doom aadama yi bëree bëri mën nañoo judd rek daal doon ay jullit waaw wala nga judd waaw nga judd daal di doon ab jullit daal su ko defee na li nga nekk nii mën nga cee nekk nii rek dégg ñoo ne gëm yàlla ak maanaam yooyu noonu ak topp yonent bi sallallahu alayhi wa nga daal di koy nga daal di ci gëm comme yow da ñu wax lii rek nga daal koy gëm waaye nag defoo dëgg dëgg dëgg li nga xamante ni mooy fikru ngir maanaam mën a wéral sa ngëm waaw su ko defee nag léegi nag ki nga xamante ni dafaa def fikru maanaam ba wéral ak ngëmam ci boromam subhaanahu wa taala du yem ak ki nga xamante ni maanaam defu ko moo tax Sëriñ Tuubaa di wax ne wa hakasa al imaanu laysa yasduqu illa biha aydan waaw ala ala ma tafaqu walaysa walaysa tasdiqu wala imaan bihi bu'ayda al fikri yaa bu'ayda al fikri yaa ixwaani waaw maanaam li nga xamante ni moom mooy ngëm suñu borom subhaanahu wa taala gu dëgg imaan gu dëgg mënta am lu dul ci ay xalaat ki nga xamante ni dafa dafa xalaat ci li yàlla suñu borom bind dem ba xelam jox ko mu xam ne wéral ne yàlla am na kooku mënta yem a ki nga xamante ni dafa judd rek dégg ñu ne yàlla am na rek mu daal di ne yàlla am na xam nga mu nu mënuñoo yem waaw su ko defee nag xalaat dafa am solo ndax fi mu toll nii xel mi nga xamante ni moom la suñu borom jox mën kaa utiliser ci àdduna moo tax fi suuf yu yi xalaat yi ñuy wax nii bokkut ak xalaat yow yi nga xam fi mu toll nii. ndax léegi tamit dinañ dikk ci anam googu mooy anam gi suufi yu ne wax ndax li ma waxee woon rek maanaam xalaat dafa am ci départ su fekkee ne amoo départ bu baax rek su ko defee fi mu toll nii. mën ngaa mujjee foo xamante ni wala yaas billahi taala moo tax ñuy wax xalaat ne léeg-léeg xalaat dafa danger léegi na faaw nga am fooy commencé moo tax suñu borom wax na ko su ko defee maanaam li nga xamante wala njëkk leeral nag mooy tey jii fi na boo gisee ñu bëree bëri bëri ñoo xam ne sànku nañ ci àdduna li leen sànku li leen moom mooy topp seen xel di xalaat di xalaat mel ne ay Darwin yu mel noonu su ko defee nag ñooñu amuñu ku leen dàttul seeni xalaat nee na su ko defee maanaam euh, seytaane moom mooy mujj téye leen ndax léegi fi ne boo xoolee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day wax ne jaam nit koo gis rek maanaam ànd nag ñaar malaayika am na malaayika bu mu àndal ak maanaam seytaane bu mu àndal bu ko defee nag xel mi nga xamante ni nag moom dafa taq dafa tirim fi ne buy xalaat nii léegi seytaane si léeg-léeg moom mooy tontu moo tax léegi ngay gis koo xamante ni ñoom mën nañuy xalaat ba dikk ci ne yàlla amut léegi fi mu toll nii maanaam xelum doomu aadama mënut a fi jënd mbir yi ndax boo xoolee alxuraan dafa wax ne yow ma yaqumu ruuxu wal malaikatu safan laa yatakallamuuna illa man adina lahu rahmaanu wa qaala sawaaban maanaam li nga xamante ni moom nga man mooy sawaab mooy wax ju jub ndax léegi yow fi mu toll li nga xamante ni moo jub si sa xel fi mu mën naa bañ a jub ci man sama xel li jub ci xelum kee mën naa bañ a jub ci xelum kee li nga xamante ni moo rafet ci sam xel mën naa bañ a rafet ci ñee moo tax fi mu doon lay xel mu mënta lijjanti mbir yi ak xel fi mu doon nii mënta lijjanti mbir yi léegi nag ñàkk gi nga xamante ni moom la ñàkk xel mën a lijjanti mbir yi léegi nag moo tax fi mu doon nii suñu borom jox ñu ay nattuwaay ndax dëgg moom dëgg li nga xam moom mooy dëgg yàlla moo ko amee xawluhul xaq wa lahul mulk wallahu yaqulul xaq wa huwa yahdi sabil ndax léegi fi mu toll nii masalan tey jii fi mu toll nii am na ngëm-ngëm yoo xamante ni dafa dafa dafa dafa takku dafa tënku ci ay xalaat léegi xalaat yooyu dañ koy nangu ndax léegi yow fi mu toll nii sax xel ki nga ki nga xamante xelam dafa set dafa sell fi mu mënut nangu eh, maanaam yàlla bañ am waaye fi mu toll tey jii maanaam boo dikkoon ci ay dëkk maanaam dëkk maanaam ñi nga xamante ne ay chrétien lañ wala ñi nga xam ay bouddhisme lañ wala ñi nga xam ay yahud lañ. Euh, wala ñi nga xam ne dañuy jaamu ay sawaraat yu mel noonu fi mu toll nii maanaam bu ñu lay wax seeni pas-pas seeni yooyu noonu yow fi mu mën naa bañ a am euh, euh, maanaam da ngay jàpp ne daal nekkul dara fi mu toll nii ñoom boo demee ci ñoom fi mu toll nii dañ koy gëm lool te mën na la ci indi ay firnde mën na la ci wax ne lan maanaam indi ci firnde yu leer naa tax ñoom ñu gëm ko xëy boo xoolee li nga xamante ni mooy waxu Darwin nga xamante moom la waxoon de maanaam doomu aadama dafa jugee ci li nga xam moom mooy golo tey ji fi mu toll nii am na xalaat boobu noonu fi mu toll am na ñu bëree bëri ñoo xam ne koo gëm nii waaw ndax léegi yow fi mu toll nii argument yi nga xamante ni ci nga mën a sukkandiku ba wax ne maanaam nit jugeewut ci li nga xamante ni moom mooy golo maanaam argument yooyu noonu yow fi mu toll nii ñee tamit moom la ñu sukkandiku ba wax ne ci lañ jugee mais nag mu ngi mel ne rek masalan tey ñi nga xam ne dañuy wax ne yàlla am na ak ñii ñëw di ko weddi fi ne yow argument yi ngay indi ngir saxal amuk yàlla gi argument yooyu tamit ñiy weddi ya amu yàlla gi ci argument boobu ci la ñuy sukkandiku ngir mën a weddi tamit ne yàlla amut waaw kay du xam ni ma maanaam fi no xel daa munta lijjanti mbir yi waaw moo tax fi mu ku ci nekk rek yow li nga am ci yow moom mooy lu jub ci yow ndax fi mu yow say xel ak say xalaat ak yooyu fi mu toll nii mën naa jub ci yow waaye mën naa bay jub ci keneen léegi nag fi mu moo tax li nga xam moom mooy sawab yow moom nga am mooy lu jub ci yow léegi nag li nga xamante ni moom mooy dëgg moo tax borom moo tax mu ne wallahu yaqulul xaq wa huwa di sabil waaw wa huwa yahdi sabil léegi nag ñàkk nga xamante ni nag moom lañ ñàkk mën a lijjanti mbir yi moo tax suñu borom léegi nag daal ñuy tegal ay nattuwaay yoo xamante ni léegi ñun nga xamante ni ay jullit lañ léegi ñi nattuwaay yooyu ci lañuy ñuy dellu léegi nag doomu aadama bi xelam saa bu xalaatee loo xamante ni euh, wuute naa ak lii rek su ko defee su boobaa ñun dañuy mën a xam ne xalaat bi bu dëppoo wuute alxuraan dëppoowut ak sariya dëppoowut ak maam sunnan rek dëppoowut ak yàlla li mu wax dëppoowut ak li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax soo baa dañuy xam ne lii jubut waaw lii jubut nii waaw waaye nag bu fekkee da ngaa loo maanaam nattuwaay yooyu noonu buñ ko suñ borom indi toon fi ne ñun duñ mën a lijjanti dara ci àdduna fi ne tey jullit bi nii fi ne lim gëm nii nga xamante ni mën naa jël euh, maanaam sukkandiku ci ne maanaam tey boo desante woon koo xamante ni gëm na yàlla am na yow li nga gëm nii mën nga cee sukkandiku di wax ne lii tax ma gëm yàlla lii tax ma gëm yàlla lii a ma gëm yàlla lii tax ñu ne yàlla am na nangam nangam bu ko defee ne argument yooyu ci boppam moom la ki nga xamante ni gëmut yàlla moom lay jël nag daal ci man a sukkandiku ngir mën a weddi yàlla tamit moom it wax na yàlla amut moo tax léegi fi noonu moo tax léegi xel dong mënta dem ci mbir yi léegi bu fekkoon ne xel dong ngay dem rek fi mu toll nii du mën a nekk waaw mbir yi mënta li jë léegi nag bi nga xamante ni loolu am na moo tax suñu borom daal di daal di indi li nga xamante ni nag mooy ay misaan yoo xam daf ñu ko jox muy ay nattuwaay yoo xamante ni ñun ci dañuy nattee wa samaa rafaaha wa wadaa al misaan allaa tatxaw fi l misaan wa aqimul wasna bil xisti wala tuxsiru misaan waaw maanaam fi mu toll nii léegi ñun ñi nga xamante ni ay jullit lañ su ko defee nag ñun léegi lépp loo xamante ni ñun xalaat nañ ko su fekkee ne loolee dëppoo wut ak li nga xamante ni moom mooy li sariya wax dëppoo wut ak alxuraan dëppoo wut ak sunna su ko defee léegi loolu dañ koy dàq ndax léegi fi mu toll nii xel jëmmi doomu aadama ni nga xamante ni moom ci jëmmi boppam noonu lay feebare noonu lay amee ay jàngoro yu ko dal ci yaram ba mu war a dem fajo yi noonu la tamit xel di amee ay rëq-rëq ak ay gàllankoor yoo xam ne day am ci xel mi su ko defee nag léegi gàllankoor yooyu noonu bu amee ci xel mi su ko defee léegi xel. bu fekkee ne xalaat na wala mu wax dara wala mu xalaat loo xamante ni xëy na xool nañ ko natt ko ci nattuwaayu sariya ñu gis ne lii kat dëppoo wutal li yàlla wax dëppoo wutal li yonte bi wax su ko defee dañuy xam ne lii xalaatu mbindeef képp la dañ koy dàq teg ne waaw léegi fi ne boo gisee alquran li muy wax ne maanaam fi mu toll nii afalaa yatadabbaruuna alqurana walaw kaana min indi xayrillahi la wajadu fihi ixtilaafan kathiran su fe xaraa ñoom dañoo seetantalu li nga xam moom mooy alxuraan su fekkoon ne seetantal nañ ko kat ñoom maanaam maanaam ndax dañoo seetantalu alxuraan waaw waaw bu fekkoon ne bàyyiwut ci yàlla maanaam alxuraan bu fekkoon ne bàyyi ci yàlla nga ci waxi mbindeef képp ci la bàyyi ko fay fekk ay ixtilaafaat yu bëree bëree bëri muy ay wuute yu bëree bëri comme ni nga xam noonu la amee ci yeneen diine yi nga xamante ni xeli doomu aadama rek ku lijjanti teg nee muy biibul nga xamante ne da ngay gis ne lañu fa soppeeku soppeeku ay yoon yoon su ko defee da nga ko fekk ixtilaafaat yu bëree bëree bëri léegi fi mu toll nag ci léegi ixtilaafaat yooyu noonu fi ne même baatu ixtilaaf sax ixtilaaf boobu nga xamante ne wajadu fii ixtilaafan kasiran baatu ixtilaaf boobu fi ne benn yoon dong la ñëw ci alquran ndax tey fi mu toll nii keneen koo xamante ni gëmut suñu borom mën naa ñëw jël baatu ixtilaafan bëgg cee sukkandiku ne ah yàlla ka nee na la wajadu fii ixtilaafan daan ne baatu ixtilaafan maam comme da nga fekk baatu ixtilaafan daal yu wute bëri nii yu bëri nii waaye fi mu toll nii gis nga suñu borom ci xarañam ak xikkamam fi mu baatu ixtilaaf boobu fi ne benn yoon dafay ñëw ci alxuraan muy foofu noonu ñëwaatul feneen la wajadu fii ixtilaafan kathiran waaw moo tax fi mu toll nii baatu ixtilaaf boobu benn fi ñu waaye nag fi li suñu borom jublu foofu mooy bu fekkoon ne tey comme ñu amee ci yeneen diine yi nga xamante ni da ngay gis kii wax lii kee wax lee kee wax lee kee wax lee comme masalan tey bible nii nga xamante ni kii day wax lii John wax lee Matthieu wax lee ah, keneen ak ku ci nekk wax li nga xam ne moom nga waaw su ko defee nag léegi maanaam moo tax léegi ñun ci ñun jullit ñi dafa am ni ñuy xalaatee muy léegi suñu borom daf ñoo jox ay nattuwaay ñun ci la ñuy su ko defee ne nattuwaay yooyu dañ koy lépp lu ñu xalaat rek bu fekkee ne dëppoo naa lool rek ñu xam ne xalaat bi jub daal léegi nag lépp luy xalaat boo xamante ni dëpp wute loolu la dañuy xam ne xalaat bi moom jub ci saytaan la bàyyi ko waaw ndax saytaan dafay dafay dafay wax yu ay nit maanaam day jaar sa xel ni di wàcc ci yow ay xalaat yoo xamante ni maanaam du jub waaw léegi nag noonu bu fekkee xalaat bi jub na nag nga xam ne xalaat bii moom nga natt ko ci sariya gis na xalaat bii dëppoo na alxuraan dëppoo na sunna su ko defee da jàpp xalaat boobu waaw ngay jàpp xalaat boobu masalan tey mu toll li ma la nga xam léegi kon mu ngi noonu léegi fi mu tuul nii xam nga tey ñi nga xam dañuy sukkandiku ci wàllum rek maanaam scientifique di wax ne maanaam léegi daal ñoom scientifique rek la ñu gëm waaw muy muy muy muy muy athéisme nga xam te dañuy weddi amuk suñu borom subhanahu wa taala xam nga tey fi noonu loolu yéenul maanaam ndax tey bu fekkoon da ngaa jëfandikoo li nga xam moom mooy sax xel rek ngir xalaat ci. daal di wax ne kat maanaam te jii fi mu doon yow gëm nga ne am nga ay maami maami maami maam yoo xam te ëpp na fukk ay maam wala ñaar fukki maam fi ne yow gëm nga loola. waaye fi mu toll nii boo sukkandikoo ci scientifique fi noonu loolu mënoo ko mënoo koo indil benn firnde bu wér ne yow am nga loolu ci ay maam waaye léegi yow da koo gëm ndax léegi gëm gi nga ko gëm lan moo tax nga gëm ko mooy da ngaa am nekk nii parce que da nekk nii ndax léegi yow xam nga ne sa maam moo jur sa yaay wala moo jur sa baay. su ko defee nag ndax tey ji sa maam moom bu amutoon sa say waajur fi ne dañu am yow it doo am su ko defee nag nga xam ne ñoom am ngañ am na moo tax yow tey nga nekk fi nii ngir scientifique scientifique fi mu toll ndax sa maam bu fekkee faat na nekkul fi scientifique laa prouver wan na la maam yooyu amoon nañ ci àdduna nekkoon nañ mais yow du tee yow gëm ne yow fi mu nii am nañ nekk nañ ndax fi mu nii lu tax booy da ngaa nekk lu xam nga ne léegi fi mu toll nii scientifique maanaam lim mën a prouver lim la mën a won mooy li nga xam da nga koy làmb di ko gis ak di ko xool di ko li nga la ngay làmb di ko daj ak li nga xam da nga koy xool di ko gis yàlla nag day doon loo xamante ni duñ ko làmb di ko daj duñ ko xool di ko gis laa ko fi saar moo tax kon boo bëggee sukkandiku ci fi rek ngir maanaam prouver won ne ngir indi ay firnde yi won ne yàlla am na ak amut da ngay juum ndax fi lim la mën ngir mu indi ay ay preuve ci lenn day doon mbir mi day doon lu ñuy mën a xool di ko gis wala ñu mën koo làmb di daj yàlla nag lu ñu xool du ko gis lu ñuy làmbi du ko daj ok mu ngi noonu léegi fi mu tuul nii nag kon moo tax ñi nga xam dañuy sukkandiku ci biir xalaat yooyu rek ngir bëgg a wedd am suñu borom gi kon dañuy juum foofu ndax léegi gëm nañ ne am nañ ay maam yoo xam tey fi mu ëpp na ñaar ko maam mais gisuñu leen te yow saw xaqiqatan yow xamoo gisoo leen mosoo gis say maam yooyu mais teewul gëm nga leen ñàkk gi nga ñàkk gis na loola. teew gëm ko yow tamit non nga war a sukkandikoo xam ne tamit li nga ñàkkee gis suñ borom du tee yow tamit nga war a gëm ne suñ borom it am na waaw du tee nga war a gëm ne maanaam suñ borom moom it am na waaw ndax tey jii fi mu toll nii maanaam bu fekkee tamit da ngaa bëgg wax ne waa léegi comme gëm nga ne yàlla am na léegi kan ma war a amal yàlla fi mu toll tamit léegi xel daf xel dafay ñëw dàqal la ndax léegi-léegi toujours lu ci nekk ñoom bi nga ko waxee jamono day dem ba ci yàgg dàqloo la ndax léegi soo fekkee da ngaa bëgg wax ne léegi masalan daal euh, maanaam kon yàlla am na waaye nag am na ko war a amal léegi loolu noonu mën a nekkee ndax xel nguul nga ñëw ne kii am na ko ko amal waaye tamit kii am na ko amal kii am na ko ko amal kii am na ko amal muy jëm fenn maanaam yëmul feen loolu mënul nekk faaw mu am fu yem foo xam mooy point bi fi ngay yem su ko defee nag loolu moom faaw mënul mën a faaw mën a nekk mais mënoo jékki-jékki rek ne maanaam lii am na lii kii ko am lii kii am muy dem loolu xel nanguwul loolu. bu ko fekkee tamit dañuy wax ne adduna bi dafa jugee ci ay masalan maanaam daal amul ku ko defal daal xam nga loolu ba tey tamit xel daf koy weddiwaat ndax léegi xel ni mu koy weddee mooy da gis ne miir bii am na ku ko amal am na ku ko amal kon léegi da ngay gëm miir bii am na waaye tam na ko am su ko defee tamit yow tamit noo ngi gëmee ne yow sa jëm bopp yow am nga waaye tamit am na am na ku la amal fi mu toll waaw kon léegi boo bëggee sukkandiku ca ca ca ca li nga xam moom la scientifique di wane nii rek science li muy wane rek ngir bëgg cee sukkandiku ngir résider maanaam amuk suñ borom gi da ngay nax sa bopp doo mënta ne waaw ndax léegi science da dafa war a doon loo xam da nga koy jëfandikoo ngir jege suñ borom waaye warul doon loo xam da nga war a jëfandikoo ngir dàq nit ñi wala nga weddiloon suñ borom ndax science euh, fi noonu la masalan tey fekkee ndax daf lay woon kii maanaam suñ borom ndax léegi moom lim la war a mën a xamal rek moom mooy li tax mbir am waaye euh, maanaam euh, maanaam mun laa wax maanaam lim lay xamal rek moom mooy euh, maanaam science lim lay jàngal lim lay xam mooy mbir yi amee mbir yi amee noonu lay waaye lan moo tax mbir mi am moom mun la koo xamal ok kon foofu dafa doon ay mbir yoo xam mu ngi noonu. kon xel day doon loo xamante ni léegi mun mun munul lijjanti mbir yi foofu fi mu toll nii moo tax léegi alxuraan fa man saa afal yumin wa man saa afal yakfur ok wa man saa afal yumin wa man saa afal yakfur innaka laa tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha kon léegi kon xam nga xel yooyu ak xalaat yooyu gis nga mu ngi noonu léegi moo tax léegi kon alquran maanaam mu ngi noonu léegi daal fi mu toll nii kon ngir nga am ngir nga sukkandiku ay xalaat nii rek ngir gis dëgg léeg-léegi day day jafe waaye na léegi alxuraan mooy dikk nag leeral li nga xam moom mooy dëgg maanaam yow sax xel euh, tey jii fi mu toll nii euh, fi na lislaam am na ñoo xam te ci ñoom am na ñoom chrétienté christianté maanaam chrétien moom moo rafet ci ñoom ndax leen seen xel daf koy nangu seen xol daf koy nangu yooyu yëpp noonu am na ñoo xam bouddhisme moo rafet ci ñoom mais eh, lislaam nanguwul ci ofitul ci ndax léegi lislaam dafa doon loo xam doonu mbirum xel ay mbiri xalaat nii rek doonu ko ok léegi fi mu doon loolu mooy li njëkk war a mat a bàyyi xel kon léegi xalaat am na solo ndax suñ borom jox na la xel kii explorer maanaam adduna bi ni mën koo jëfandikoo man ngaa jël sa xel ngir xalaat li nga xamante ni moom mooy ni ngay def ba defar avion ak gaal gi nga xam ne ci ngay mën a jaar ngir mën koo yett defar ko jaar ci ndox mi ak tamit ni nga xamanteni non ngay mëna def ba mëna a ab yob xam man nga ci jóge dëkk ak dëkk di ci dem ah, ak tamit ni nga xamanteni mu ngi non ah, man ngay fexé ba ni ngay def ba gëlëm gi mo la ëpp doole nga fexé ba ko jëfëndiko ko mu lay liggéeyal ah yu ci nekk fi mu toll nii sa xel mën nga koy jëfandikoo eh, ay ki yo xamanteni ma nga fekk jënd yi ci biir geej gi di sabbal seen borom di ko jaam nga génne leen maam jëfandiku leen. kon lu ci nekk rek ak yett garab yi nii defar ci ay dénk ay ay ay ay mu ngi noonu ay taabul ay lalak yooyu yëpp fi mu doon ci xel maanaam si la ko suñu borom defar léegi xalaat yooyu bu ñu waxee xalaat kon yii ni mu wax nii léegi dafa am xalaat boo fii la jëm nii fii la jëm nga xam da ba noo amee alal fexe ba noo mën a naxee nit léegi yooyu xalaat yi adduna la léegi nag xalaat bi mustasawifuuna yi di wax nag dafa wuuteeg xalaat yi yéen a ñuy wax ok léegi. bu fekkee ne nag maanaam da nga jëm ci di xalaat da jëm ci di xalaat dafa am xalaat yi foo ko war a teg am fu mu war a commencé léegi nag départu xalaat bi bu fekkee baaxul rek mën ngaa mujjee foo xamante wala yes billahi taala waaye bu départ bi baaxee rek mën ngaa am mën ngaa am maanaam maanaam maam kii bu baax nii mën nga cee mën nga cee jëriñ léegi suñu borom nag moo tax ñu allazina yazkuruna allaha xiyaman wa quudan وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار كل لي بو فكي دا ngay خلات سيني بروم دا فا بو فكي دا ngay خلات دا ngay كوماسي دي خلات تي ليغا خام موم لا سيني بروم بين موي جانت بي اك وير وي اك غرب بي اك ndokh mi اك يوي نون nga خلات تي خلات يو جي سي جيم وفي انفسكم افلا تبصرون Hmm? su ko defee na ngay xalaat ci loolu ndax léegi booy xalaat ci sa jëmm jii nii maanaam gis sa karaw yi ni muy sëqee ak di kiyaat noonu nga gis ko noonu ak di xalaat ci li nga xam mooy suñ borom bind gi bind euh, jant bi muy leer di fenk ak di kii nii indi leer goo xamante ni mu ngi noonu di xalaat ci weer yi di xalaat ci garab yi di xalaat ci ndox mi nga xalaat ne ndox mi tey jii fi mu toll nii ñii ko suñ borom defee nga xam tey jii fi gis nga poids bi mu am. tey bu amoon poids diwlin fi mu toon dootoo ko mën a jëfandikoo yaa ngi dégg xalaat ci sawara si xalaat ci doj yi ah te xalaat ci bëccëg géeg maanaam guddi yi yooyu nag su ko defee nag ci ngay jaare jaare jaare ba am li nga xamante ni mooy xam suñu borom subhaanahu wa taala waaw maanaam ngir nga mën a xam yàlla dëgg-dëgg maanaam faaw nga jaar ci bindeefam yii yi nga xamante ni euh, maanaam moom la moom moom la bind nii kon maarifatu billahi ngir nga am ko dëgg yaa ngi koy amee ci li nga xamante ni mooy fikku waaye li nga xamante ne mooy dëkkaale ak suñu borom subhaanahu wa taala maanaam ci li nga ko mën a amee rek moom mooy euh, ni nga ko waxatee maanaam zikru bi zikrullahi ci nga mën a amee loolu kon mu ngi noonu kon daal mu ngi noonu xalaat dafa am ci foo koy jaaree ci njëlbeen gi su fekkee ne amoo foo ko maanaam jaaru fi mu war a jaaree su ko defee day am ay jafe-jafe waaw day am ay jafe-jafe hmm. kon mu ngi noonu kon léegi bi ngay xalaat da nga war a commencé ci li nga xam moom mooy euh, maanaam mooy mooy mooy mooy maanaam xalaat ci suñ ci ci kii nii bu ko defee ne di xalaat bu fekkee yaa ngi dugg jub di jëm ci xalaat da ngay xalaat ci li nga xamante ni moom moo lay jëriñ nag ngay def ba ba jege gën a jege sa borom subhanahu wa taala ak naka ngay def ba mucc ci li nga xam mooy ay bàkkaar hmm? di xalaat ci nooy gën a jege suñu borom subhanahu wa taala maa fi ne boo jékki-jékki rek jug xalaat jëm dëgg-dëgg gaaw jëm ci yoo xamante ni muy suñu borom ak yu mel noonu euh, xalaat ci jëmmi suñu borom su ko defee maanaam waliyaasu billaahi taala loolu baaxul da ngay xalaat booy commencé da xalaat ci suñu borom bind ci njëlbeen di xalaat nag ngay def ba mën a jege suñu borom di xalaat maam nekk ngay def ba ma nga xamante ni li la suñu borom digal di ko mën a matale watt ni ko li nga xam moom la la tere. ak maanaam mboolem li nga xamante yaa ngi koy jëf ci ay lu baax nga di ci sant suñu borom di xalaat tamit mbugalam mi nga xamante ni mooy mbugalamu mett ba ngir nga mën caa euh, def nooy def ba mën caa mucc ak li nga xam mooy melokaan yi nga xamante ni su nekkee ci yow mën naa tax doo jege suñu borom subhaanahu wa te mooy melokaan yi nga xam ne day nëbb ci biir xol ak melokaan yi nga xam day feeñ ci biti muy jikko yu ñaaw yi ah, bu ko defee nag yi nga xam day nëbb ci xol nga fexe nooy génnee ci. jikko yooyu ak tamit nooy fexe ba mën a ràngoo jikko yu rafet yi nga xam mooy tax nga jege suñu borom subhaanahu wa taala di xalaat ci nooy fexe ba xam li nga xam mooy dund ruux gi ak li nga xam mooy dundu bakkan gi su ko defee nag nga mën a xam li nga xamante ni noonu nga def na ba dundal sa ak li nga xam moom ngay fexee ba euh, doo jox sa xel doo jox sa sa sa sa bakkan ak dundam mooy dund goo xamante ni jox ko loo xamante ni rek mën naa ñàkk nii loolu xam nga kon fi mu toll nii bu ko defee nga dattu say xalaat teg ko foofu noonu. moo tax léegi suñ borom di wax ne maanaam maanaam maanaam mu ngi noonu léegi sooy xalaat da ngay commencé foofu ndax xel dafa am na ko suñ borom bindee fi na xel nii lu garaaw a garaaw la fi na xel fi na lu gis nii rek gis na da koy enregistré denc ko ci biiram waaw da koy enregistré denc ko ci biiram ndax xel fi na mooy xalaat mooy fàttaliku mooy seetantal fi gis nii rek dana ko boole lu mu xamoon ak lu kii woon maanaam ci diir bu gàtt fi nii maa man cee xalaat nii waaw. maanaam tey jii fi ne boo waxee dara loo xamante ni tey maanaam xamoon na ko nii euh, mën na ko tey jii fi mu toll nii man xalaat boo xam tey jii fi mu loo xam da koo xam nii rek boo ko waxee fi mu toll nii. su fekkee ne am na leen lum mu xamul lu niroog loolu fi ne gis xel mi fi ne fi change dana def liggéey bu garaw foofu noonu bu ko defee maanaam man a xool ñaari wax yi ba xam lu mu leen di méngi dee boo leen xam maanaam lu mu ciy dëgg ak ci du dëgg kon mu ngi noonu kon daa faaw njëlbeen gi yow da ngay commencé ci noonu rek loolu nag boo xoolee Serigne Touba wax na ci yu bëree bëree bëree bëree bëri waaw léegi ki nga xamante ni nag dafay doon koo xamante ni eh, dafay dog di jug di xalaat mën nay xalaat ci di jeexu adduna gi tamit di xool di xam ba xam nan lay def ba mën a mucc ndax adduna kat mu xam ne du barab boo xamante ni eh, day day day sax waaye barab la boo xamante ni rek suñu borom subhanahu wa taala moo ñu fi indi ngir nattuñu mu xam ne. mbaam aduna kat day jeex su ko defee nag léegi dana tax moom mu gën a mën a góorgóorlu gën a mën a sawar ci jaamu suñu borom subhanahu wa taala niki tamit di xalaat ci li nga xamante ni moom mooy euh, maanaam euh, fay gi suñu borom digge ci jëf ju baax su ko defee loolu dana ko gën a mën a soññ ngir mu mën a dolli ko ak tamit ak sawar nii waaw ni noonu ki nga xamante ni mooy ki nga xam jaamu suñu borom ba xelam set xelam sel kooku ay xalaatam la mu koy indil mooy mahabbatullahi mooy bëgg suñ borom subhanahu wa taala moom la koy indil fintoon yi waaw mooy koy dolli ak li nga xamante ni mooy mahabbatullahi su ko defee nag kooku li muy gën a dolli ko mooy da ngay gis ne ngëmam day gën a dëgër du bokk ak ki nga xamante ni moom ngëmam dafa yemoon rek ci rek wax nañ rek nga dégg wax nañ nga dégg su ko defee ne xalaat googu ngay xalaat noonu di xalaat nii ci li nga xam moom la suñu borom bind mooy dem ba mujj gi fintoon ne bi day dem ba doon loo xamante ni lépp loo ci gisate rek dalay delloo ci suñ borom subhanahu wa lépp loo ci gisate rek dalay delloo ci suñ borom subhanahu wa nga xam léegi adduna bi dont yaa ngi ci nekk nii boo fi dox nii day mel yaa ngi dox ci biir malakuut day mel yaa ngi dox ci biir malakuut ndax lépp loo gis daf lay daf lay yóbbuwaat ci yàlla mooy dem ba mujj nag malakuutu laa bi daal di ubbeeku ci yow su ko defee nag malakuutu suflaa boobu bu ubbeekoo nag mooy dem ba indi mala ubbi malakuutu bi ok nga xam léegi li nga gis lépp day mujj ñoom dañuy dikk yow di la xamal seen bopp ngay xam seen dëgg-dëgg sirru fentoon yi waaw su ko defee nag kooku nag ngëm-ngëm yi nga am ci suñu borom ak maarifatu billah bi koy bi koy dikkal ni du bokk ak ki nga xamante ni maanaam départ gud di jëm ci ay xalaat départ gud ñaar ñooñu fi ne duñ mën a bokk waaw ñaaree fi ne duñ mën a bokk su ko defee yow bi ngay doo commencé fentoo yaa ngi doon xalaat rek ci àqulu saani bii ak xalbu saani bi yow ci nga nekkoon di ci xalaat léegi bi mu dëgëree ba dëgër nag mais da ngaa mujj nag di xalaatee ci xelum xol ba di xalaatee ci xelum ruux ak di maanaam bëggee ci si xolam fi mu toll nga xam léegi yaa ngi nekk ci aqlu awal ba ak xalbu awal ba nga xam mooy melokaani ruux su ko defee nag foofu noonu moo tax léegi nga mën a maanaam suñu borom mën laa xamal loo xamante ni fi na boo ko doon wax ki nga xamante ni fii rek lay xalaatee ci mooy xol bii ne ci moom ak xel mii ne ci moom nii ci jëmmam ji su ko defee fi noonu kooku du ko mën a gëm daal du ko mën a gëm waaw te ñaari ñooñu tamit duñ mën a yem moo tax mhm. kon dëgg-dëgg gëm daal munta am lu ci li nga xamante ni mooy fikru waaw ndax léegi fikru gi ngay def nii day mel ni ab seetu tamit boo xamante ni daf lay won say ñaawtiif nga xam léegi da ngay mën a gis mboolem say ñaawtiif nii ndax léegi xalaat dafa doon day mel ni ab seetu boo xam da lay tegal sa jëmm nii waaw day xalaat di jëmale ci sa jëmmi bopp di xool yow say gàkk-gàkk yi la taxa a euh, téye maanaam egg suñu borom nii su ko defee nag gàkk-gàkk yooyu su ko def kay xool nooy fexe maanaam ba génn ci ba denc nii fi mu toll nii moo tax mu ngi noonu maanaam xel moom di ko jëfandikoo di ci xalaat wax dëgg dana la dimbale ci lu bëree bëree bari nii dana la dimbale ci lu bëree bari nii waaw dana la dimbale ci lu bëree bari su ko defee daal booy doogu jug nii ci di xalaat nii jëmale ci ci ci dox ci yoonu suñu borom maanaam xel yi eh, maanaam say xalaat dafa am foo ko a teg waaw dafa am foo ko war a teg bu jug rek jëm ci xalaat yoo xamante ni mu ngi noonu jëmal ci xalaat yi nga xamante ni mooy xalaat ci yow nooy gën a jege suñu borom bu ko defee xalaat boobu day mel ni seetu boo xamante ni da ngaa jàkkaarloo su ko defee da lay wanaat sa li nga xamante moom mooy sa bopp nii ci la woon sa jëmm nii maanaam di la woon sa sa taq-taq yi xel ak sa xol su ko defee nga gis sa ayi bi bopp ngir mën koo dindi sa bopp nii waa su ko defee nag li nga xamante ni moom mooy am na xalaat yoo xamante ni bëgguñu ko waaw mooy xalaat yoo xamante ni mooy di xalaat ci euh, masalan tey euh, sa ñàkk gi nga ñàkk nii ci àdduna ngay xalaat ci ñàkk googu euh, bu ko defee bu yàggee fi mu toll nii maanaam dalay day da ngay sànq say waxtu ci loo xamante ni tey jii fi mu toll nii maanaam amul benn njariñ nii di xalaat ci ñàkk ki nga ñàkk daal bu ko defee tamit saytaan foofu mën naa yor loolu foofu bu ko defee eh, daal lay dugal say xel feneen fi mu toll nii ko defee nag léegi ni def rek mooy fexe ba noo génnee ci sa ñàkk googu fexe ba noo ci sa ñàkk googu moo tax fi loolu eh, tamit mat naa bàyyi xel mat naa bàyyi xel mu ngi noonu kon daal xalaatal ci li yàlla bind moo tax suñu boroom nee na افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ندخ نيوم خولو ني نيغا خامتو نون لا سوني بروم بيندي مانام غيليم نيكو سوني بروم بيندي خلات في لولو اه سو غافي لولو و تي خلات دا دا تخ ليغي نغا مانا خام سوني بروم سبحانه وتعالى والى السماء كيف رفعت اك ني سوني بروم بيندي اسمان امود لين لوكو تي فين توني جي اي اي مانام بوتو يخام موكاي تي wa ilal jibaali kayfa nusibat ak suñ borom montagne rëy yi nga xam moom la samp ci maanaam suuf nii yooyu nga ciy xalaat wa wa ilal ardi kayfa sutihat ak ñi nga xam noonu la suñ borom subhaanahu wa taala maanaam tàllalee suuf nga xam te yaa ngi ne ci biir benn bul boo xamante ni maanaam benn bul la nii boo xam day mel ne ndax adduna maanaam dafa boo ko dee xool ci euh, planète yi fi mu toll nii da ngay gis ne dafa mel dafa mel ne ab benn bul rek. su fa defee nag yaa ngi ne ci biir buur boobu waaye fi mu toll gis nga boo taxawee nii da ngay gis ne adduna bi suuf dafa tàll ñaay maam daal di tàll nii léegi ngay xalaat ci yooyu su fa defee nag mu ngi noonu waaw moo tax suñu borom tamit mu ngi wax ne afala yanzuruna ila al ibli kayfa xuliqat waaw ndax gisuñu ko am na yeneen tamit yu mu wax ne afal afalam yasiru fil ardi fa yanzuru kayfa kaana aqibatu allazina min qablihim waaw waaw ndax ñoom doxuñu xool ci àdduna ñi nga xam ñoo leen fi jiitu woon fa suñ borom subhaanahu wa taala mujj ak ñoom ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci suuf maam doon fi mooy suñ borom ah doon def yenn yi ba suñ borom alag ndax ñoom xooluñu foofu noonu doxuñu xool noonu yàlla mujjee woon ak ñoom nii waaw nii tamit ñi nga xamante nii ñoom ci kaw suuf dañoo dañoo won ginnaaw suñ borom subhaanahu wa taala ñoom seeni xalaat su koo topp Ah, wala tuti man aqfalna khalbu an zikrina wattaba xaweew suñu borom nee na ñi nga xamanteni seeni xel dafa dafa dafa rek manam maam te seen xol dafa gën ci tuddu suñu borom ak fàttaliku suñu borom nee na ñooñu bu leen leen top ah, wattaba xaweew nga top seen banex ni ñom suñu borom nee ñom bu leen leen top ah, bu leen leen top da legi fiñ tourni jamono bu ne dafa am jamono lu indi legi. ci loo xamante ni lu dëppoo ak ngërëmul suñu borom subhanahu wa taala masalan tey fi ne masalan tey wàllum góor jigéen ñi ndax léegi sariya dafa doon loo xamante ni day mel ni léegi dafay tënk doomu aadama bi su ko defee mën ngaa gis ñoo xamante ni mën nañoo dem ba nga xamante ni léegi euh, dañuy dugg euh, ci yeneen ngir yoo xamante ni léegi euh, ngir li koy waral moom mooy tënk gi leen sariya doon tënk léegi dañ koy bañee dañ ciy bañ a tënku daal léegi dañuy dañuy bëgg daal rek maanaam jaar seen yoonu bopp su ko defee ñu mën a def lu leen neex mën a wax lu leen neex mën a jëf lu leen neex masalan tey ñi nga xam dañuy jaamu seytaane nii nga xam dañoo ay idée la rek ak ay franc ay idée la yoo xamante ni léegi xam doomu aadama day bëñ lu tënk te fi ne doomu aadama faaw mu am ko tënk su ko defee nag ñoom dañu gis ne léegi ñii génnee ci lii nga xam moom la yàlla wax nii dem ci ñoom lii nga xamante ni moom mooy ay franc dem ci li nga xamante ni moom mooy euh, maanaam ay idées yoo xamante ni ay gëm-gëm la yoo xamante ni baaxul su ko defee nag su boobaa fi mu nii day doon loo xamante ni ñoom seen jëm bopp maanaam day doon loo xamante ni ay gëm-gëm la yoo xamante ni léegi ñoom ñoom ñoom suñ ko toppee day tax ñu mën a topp seen bànneex lu leen neexee tey fi mu nii boo demee euh, sariya daf naan la léegi euh, maanaam jigéen gu la liwut ko xool maanaam lii mooy awraam lii mooy awraam lii léegi nag lii bul ko xool yemal fii léegi nag su ko defee nag adduna maam jamono day am lu muy indi mooy ay gëm-gëm yoo xam ne dafa koy indi fi noonu tey bu njëkk boo xoolee jamono bu njëkk jigéen ñi fi ne ba ci dëkki tubaab yi dangay gis ne maanaam dafa am nuñ daan solo fi ay robb yu jot lañ daan sol nii waaye léegi fi mu toll nii gis nga maanaam dañuy dem ba léegi saytaane eh, dafa am yéeg yu mu leen di indil nga xam ne dañuy dem ba ci yàgg ñuy wax ne maanaam daal nit ki daal am na liberté yi mën a sol lu ko neex maanaam dund lu ko neex wax lu ko neex jëf lu ko neex su ko defee nag nit ki yu bon yi nga xam moom lay sol nii su ko defee day doon yoo xamante ni fi mu toll nii euh, maanaam ñi nga xamante ni ñoo sos xalaat yi mel noonu loolu moom lañ ci bëgg fi mu toll nii su ko defee yow da dox ci biti nii rek mel ni koo xamante ni sàngu nga sol nga lu baax su ko defee fi mu toll nii fekk yow dangaa sol ba pare maanaam rafetluwaat daal. léegi nag loolu tamit dem na ba laal dëkk yi nga xamante ni mooy dëkk yi jullit ñi am na ñoo xam tey jii fi mu toll nii. jàpp nañ ne sol gu bon moom mooy li am njëriñ nga xam léegi euh, fi mu toll nii suñ ko solul rek maanaam maanaam daal day mel ni nekkuñu daal maanaam day am loo xamante ni fi mu toll nii bu ko jamono indee ña cee nekk di ca dund maanaam idée xalaat yooyu day mel ni ña nekk di ca dund ñoom ñooy nit. waaye daal mooy ñi nga xamante ni ñoo ñi am personnalité fi mu toll nii nga xam ti léegi ñoom seen jëm bopp fi na tey jii euh, jamono yi nga xamante ni moom la fi luut yonti yàlla luut nekkoon. ñi nga xam ñoo doon dund ay wàllu ngóor jigéen ak yooyu mel noonu fi mu toll jamono boobu maanaam jamono boobu loolu mooy xewoon nga xam te ne fi ku ci dund toon rek fi mu toll day mel ni yow nekkoo ci dara waaw day mel ni nekkoo ci dara waaw nga xam ci léegi fi ne jamono boobu mooy loolu mooy xewoon nga xam ne eggu na sax ci penc yeeg yëpp ci lañ koy defee nii waaw nga xam te léegi fi ne ku ci dund rek day mel ni yow nekkoo ci dara fi ne tey jamono jii. li nga xamante ni moom lañu ay féministe ay communiste yooyu noonu yooyu idée la yoo xamante ni say maam seytaane ko indi léegi nag indi gi ñu ko indi nag bul foog ne maanaam ngir jox la yow sa liberté moom moo tax déedéet nekkul loolu de maam nekkul ne dañoo bëgg yow nga am liberté mën a dund maam moom la jox la loo xamante ni maanaam bul foog ne daal masalan tey jii fi mu toll nii idée yu ñu indi ngir maanaam lu lay amassé loola déedéet lu lay loo ginnaaw la. te ñoom ñi ko teg nii nag yàlla nee na ngir topp seen bànneex rek moo tax fi mu toll ñu def ko nii ngir topp seen bànneex rek waaw waaw ngir topp seen bànneex dong moo tax ñu def fi noonu tey ji boo xoolee suñu borom li mu diggale ci jul maanaam góor ak jigéen tey jigéen ñi dem nañ ba nga xamante ni jàpp nañ ne cër bi borom jox nga xamante ni fi noonu bu njëkk jigéen dañ ko daan doon léegi nii sariya maanaam bi mu dikkee jox jigéen ab cëram waaw gu bu njëkk jigéen fi mu toll nii maanaam masalan daal dañ koo doyadaloon lool maam tuutil ko lool joxuñ ko benn cër waaye sariya bi mu dikkee daf ko jox cëram jox ko gëddam waaw maam jox ko li nga xam moom la yeyoo waaye nag jigéen ak góor yemuñu yemuñu ar rijaalu xawaamuuna ala nisaa bima bi allahu bihi baadum ala baad waaw léegi nag fi mu toll nii ñi nga xam mooy féministe yi nga xamante ni léegi ñoom li ñuy wax mooy ah déedéet moom jigéen ak góor ñoo yem waaw ah, lu góor man jigéen man na ko ah, maanaam léegi fi mu toll nii daal maanaam ah, fu jigéen teg fu góor teg tànkam jigéen mën na faa teg tànk léegi nag idées yooyu nga xam moom la indi nag léegi na su yàggee maanaam ñu ngi génne jigéen gi di ko dugal ci loo xamante ni mooy ak wàññitikoom maanaam ak dellu ginnaawam ndax léegi fi mu tuur nii fa ko lis la ko lislaam joxoon ak fa ko lislaam tegoon loolu mooy ak yokkuteem mooy ak avancé waaye na léegi ñii dañ koy gëm loo xam day mel ni ci kaw maanaam du rafet la daal waaw léegi nag su ko defee nag baat yi jëfandikoo ak nañuy waxee yow su ko defee boo amee complexe da ngay jàpp ni yow lii mooy dëgg nii waaw ndax léegi doomu aadama ko doon waxee rek mooy bañ du ko tënk waaw mooy bañ di ko tënk léegi bu ko dara tënkee rek fi ne da gis ne boo keneen di ko di ko wax mbir yoo xamante ni fi ne bakkanam da koy nangu ni su ko defee day yomb lool ngir mu ànd ak moom waaw day yomb lool ngir mu ànd ak kooku noonu su ko defee fi mu nii moo tax moo tax fi mu toll nii suñu borom di wax ne wala tutee man axfalnaa xalbahu an zikrina wattaba haweehu wa kaana amruhu furutan di wax ne tamit yàlla di wax ne ñooñu nga xamante ni tamit léegi léegi ñu sos ay idée ak i xalaat yoo xamante ni léegi day day mel day xaw ci aduna ni ci jamono ni nga xamanteni ku nekkul ci gëm-gëm yoy ak idée yoy rek day mel ni yow nekkoo ci dara suñu borom neena na ñooñu tamit loolu ñu def noonu defuñ ko lu dul aduna wa fa arid an man tawalla an zikrina wa lam yurid illa al hayat ad dunya zalika mablughuhum min al ilm inna rabbaka huwa alam biman dalla an sabili wa huwa alam biman ihtada manam suñu borom dafa wax yonent bi nako ñi nga xamanteni dañu dañu tedd won ñu ginnaw yow ñooñu na leen woon ginnaaw bu ko defee ñooñu nga xamante ne fi mu toll nii tey jii dañuy indi ay ay kii yoo xamante ni masalan dañ koy def nii maanaam droit de maanaam femme wala ni ñu koy waxatee seen baar yooyu ñuy wax rek waaw maanaam jigéen ay droit indi yoo xam ne sax day fi mu toll nii dafay gën a joxaat àq ak yelleef ci ci jigéen ñi waaw indi yoo xamante ni fi mu toll mu ngi noonu ak yeneen ak yeneen yi nga xam moo am rek ci adduna te ñun xam nañ yooyu yëpp ñuy wax ni su ko defee nag yooyu noonu. yàlla nee na yooyu ñu indi noonu defuñu ko ngir maanaam dara lu dul topp adduna maanaam adduna dong nga tax ñu koy def nii waaw adduna képp du leneen adduna képp du leneen moo tax mu ngi noonu léegi nag doomu aadama ngir mu xàmmee li nga xam mooy lu set mooy lu sell li mooy lu laab li mooy li suñu borom gërëm hmm? mooy li nga xam moom lu suñu borom gërëm nii léegi ngir mu am ko day aaju ndimbalu suñu borom subhaanahu wa taala moom moo tax suñu borom di wax ne fa man yuridillahu an yahdihu yasrax sadrahu lil islam waaw moo tax fi mu nii képp koo xamante ni suñu borom namm na ci moom maanaam aw yiiwam faaw mu defal mu leeral xolam leeral xelam ak xolam ba léegi mu xàmmee li nga xam moom mooy dëgg ak li nga xam moom mooy ab safaan su ko defee bu fekkee ne loo xamante ni dañ ko wax wala ñu indi ko walla jamono xewal ko bu dee dëgg rek. fi mu toll nii ndax léegi loolu noonu maanaam leeruk sariyaan lay doon maanaam akum min minallahi nuurun wa kitaabun mubiin fi nas sa lislaam nii ak leer la goo xam day bu tàkkee ci biir xol doomu aadama mooy tax mu xàmmee liy dëgg xàmmee li nga xamante ni maanaam du dëgg nii waaw moo tax fi mu toll nii maanaam maanaam muy noonu yaa ayuha nnaas qad jaakum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuuran mubiinan waaw nga xamante ni yooyu noonu fi ne ay leer la yoo xamante ni mooy tax mooy tàkk ci biir xol doomu aadama ngir mën koo leerale li nga xamante ni mooy dëgg ak li nga xam moom mooy ay caaxaan mooy ay neen ba mën koo xàmmee waaw mën koo xam nii waaw nga xamante ni léegi lislaam mooy li nga xam moom moo lay génne ci lëndëm dugal la ci ak leer yahdi bihi llahu man ittabaa ridwanahu subula salaam wa yuxrijuhum min azulumati ila an nuur nga xam ci léegi daf lay génne ci li nga xam moom mooy ak lëndam dugal la ci li nga xam mooy ak leer su ko defee nag nga xamante ni léegi yow léegi dootu toppati sa xel rek di dem waaye da xool fi nga xamante ni dina suñ borom wax ak fi mu la nga jaar waaw su ko defee nag mu ngi noonu waaw waaye nag bu fekkoon ne xel dong doy na nii fi mu toll nii adduna bi mu ngi noonu maanaam xel dafa doyit daal daa mën a daa mënta lijjanti lépp waaw dafa munte lijjanti li nga xam mooy mbiri nii waaw fa in tanaza fa in tanazatum fi shay'in fa rudduhu ila llahi wa rasuli maanaam bu ngeen xëy na bu ngeen bu wutee ci ay mbir dangeen koy delluwaat ci yàlla akub jonanteem gis lañ ci àtte ak lañ ca wax su ko defee ngeen téye loola waaw waaye fi mu doon bu fekkee ne seen xel la nii rek maanaam du ngeen mën lijjanti ndax léegi yow lii jub ci yow ak baax ci yow baaxul ci kii jubul ci kii su ko defee nag léegi bu ngeen xëccoo ay mbir rek da ngeen koy dellowaat ci yàlla dellowaat ko ci ab yonanteem léegi lañ ca wax rek ñun loolu la ñu téye wa maxtalaftum fiihi min shay'in fa xukmuhu ilallaahi waaw mu ngi noonu léegi nga xam léegi yow lépp loo xamante ni euh, léegi yàlla wax na ko ab yonanteem rek yow loolu ngay téye waaw bu ko defee xel mi xel mu ak ku mën a doon fi na bu xalaatee bu dëpp wut a sariyaan rek fi na xalaat boobu dañ koy daax ndax dañuy xam ne kon léegi xel moom dafa dafa dafa am jafe-jafe daal waaw dafa am jafe-jafe nii waaw ah, mu ngi noonu kon kon kon kon kon kon daal xalaat am na solo lool xalaat am na solo waaye nag ak naka naka ngay xalaatee fi mu toll nii moo tax fi ne boo diggee sufiyanke di wax xalaat maanaam liñ ci jub dëgg maanaam bokkute yow xalaat yi nga xam moom ngay xam nii rek mooy xalaat yi nga xam dafay jëm ci yàlla doon xalaat yoo xamante ni xalaat yi àdduna képp lay doon nii waaw ah, waaye xalaat la yoo xamante ni nooy def mën a jege ak sa borom subhanahu wa nooy def ba mën a jege ak sa sa borom subhanahu xam li nga am ay maarifaat xam xam yàlla dëgg nga xam ti yaa ngi koy amee ci li nga xamante ni moom mooy mooy mooy mooy mooy li nga xamante ni euh, moom mooy xalaat ndax dafa am koo xamante ni dañ ko laajoon ne ko bi ma arafta rabbaka aljalila maanaam ci naka nga xamee sa borom subhanahu wa taala mu wax leen ne maanaam man maa ngi ci li ma sukkandiku ba xam suñu borom du lenn lu dul rek maam di sukkandiku ci li yàlla bind di ci xalaat di ci fikru ba amee ci li nga xam mooy maarifa maarifat billah ci loolu ci laa jaar ba am suñu borom subhanahu wa taala moo tax mu ngi noonu kon mu ngi noonu xalaat daal am na solo waaye nag ak fañ koy teg ak fañ koy jaarale moo tax tamit du ñàkk du mën a ñàkkit nga am sayxu boo xamante ni tamit daf lay dattul say xalaat di la wax ne la yow léegi ci li nga war xalaat ak li nga xamante ni yow waroo cee xalaat fi ne loolu mënul ñàkk nii faaw nga am sayxu boo xam tamit daf lay jaarale ci yoon bi nga xam ci ngay xalaat ni waaye boo jékki-jékki tëb rek maanaam demal sa bopp rek te amoo maanaam départ bu baax rek su boobaa du baax ci yow waaw mu ngi noonu mu ngi noonu kon euh, mu ngi noonu kon daal xam naa loolu lañ bëggoon indi ci li nga xam moom mooy xalaat euh, doon ci fàttalante rek xam naa di ko yemale foofu euh, waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu.